ñu ñëwoon rek am luñ bëgg a leeral tuuti rek ci li nga xam ne mooy rumeur yi nga xam ne dégg nañ ko ci collectivité maanaam ci commune Touba muy ne salle d'archives dafa tàkk waaye ñu xamale ne rek dafa am mesure quelques registres yu fa tàkk waaye ci loolu itam bi mu amee bi ñëwee sur le lieu xool nañu xam ne gis ne biir salle d'archives benn porte ubbeeku ci benn amu ci loolu nag lim ñu daal di bëgg jox nag ci waxi mag ñi mooy dañu jàpp ne unk bu mag moo ko def ndax mag ñu wax nañ ni unk bu mat ñaare dana def loolu parce que niñ gisee muy daw mel ne luy daw ci biir archive bi xam nañ ne loolu unkul moo ko mën a def waaye du loo xam ne parce que ci wàllu courant bi courant bi lépp ngay tàkk ci wàllu itam fenêtre yi nit waroon mën a jaar euh, def fa lañ fay def fenêtre yëpp ferme kon nag ba xam ne ci jot a toj ci ngis ko sa yi bi ñëwee saxaar si nekk ci biir ñoom ñoom obligé toj fenêtre yi pour que fala wala euh, euh, falaam bi nekk ci biir mën a mën a génn loolu moo waral nag waaye euh, ñu ngi sant yàlla parce que plus de douze mille treize mille riis fu nekk ñu naan ay trente ak nangama ca xaw a moo ca laal kon loolu sant yàlla la ñaareel ba it lépp mi ngi ci biir machine yi yàlla defoon na collectivité locale min ministre bi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu yàggul rek yabaloon na fii nit ñu ñëwoon def fi opération bu mag bu mat sëkk ànd kook ñun ba lépp def nañ ko ci ay machine ba li nga xam ne moo jot lakkit du am benn problème kon nag nit ñi xamee noonu ya xam ne nag coow jàpp nañ ne du li ñu lakk du la fa nit def du dara parce que fii Sëñ Tuubaa aar léppam loolu rek moo ko waral waaye nag du leneen kon ñu bëggoon ko leeral ba ñëpp xamee ko noonu xam ne du loo xam ne nii euh, lenn la li ci am nag mooy sapeur yi ñëw nañ ñu ngi leen sant police ñëw nañ gendarmerie ñëw nañ def nañ seen constat ñoom itam dem ñu ngi leen di diglu waaye ñun daal liñ mën a jàpp mooy dañu jàpp ne rek loolu li ko def mooy li ma leen wax unk bu mag a ko def ndax caawoo gi mu doon def daw fii daw fii jàpp nañ ni loolu la mën a dem waaye leneen amu ci ñu ngi gërëm ñëpp nag sant ñëpp euh, taxut itam arrêt am ci liggéey ni ngeen ko ngi liggéey ñëpp ñëpp ak fi am na ñoo xam ne nag boo ñëwee fekkoo leen seen bureau nga xam ne dañoo ñëw tey rek waaye taxul ñu arrêté liggéey bi ku ñëw itam mën nga ñi ngi ci saal yi di liggéey